lucky winners of $100 credit top up. Yes, from now till the 16th of July 2021, Send money to family and friends in the Gambia from anywhere this Tobaski with Supersonics money transfer and get the chance to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50 kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1000 worth of cash power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 أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم sande fututa gambia um, futu muso yaala nataaluta ayala private part walala alaaluta nata fiyakimay walla na eta video call fa mo jama kontale bare aya ke a ke male ma fo ala kambano wona kote mu am dino e mune fo nyin kusi fato lo wote konnalo serewo e kuwolle londi moolu ñin dara sidol men nin musoɓe america be gambia ko fulale ɓe je kato beke musoye ta ko kato beke teta musonin kewo be ñoo kan musoo b'a la period kewo na e ni ila alayhi salatu wassalam ako moo tata taata jiibeere laaya a fayiye surtout fulanjaŋo ila musoo be kuuroo kono taata i naa ye la kafara bima unzila ala muhammad womaari kafiriyaata kitaaboo ma ala ye be ñinni kiila kamen walkuranoti musoo ko aniŋ a keemaa ye problème o because um, a keemaa lafita le pour la private part ka suusuwaa ye uh, kewo ko ala musoo lafita a fanaŋ ye bari uh, uh, uh, kewoñin kaye ko nteɓe um, alato fola na nka kaduwa damen na ntete wo dumila mum sola prave patto bari dino e mune ko ñinto bunda to a koyenne ko wolumu wulolula daji koleti annin beyawon Oh mm-hmm. أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام mbaɗigol kon ka kala ñamen donc semestre avenue len jaam bañol international airport ani gambien talents tv lem kana airport kana semestre interview kana semestre welcome gambe bonko ka kon falle ñamen donc ta dandi la famille do kana semestre interview banto fo mbete rajana gambien talents tv ni semestre le diamo soto nge interview ila nani la ku jama jama ngol albi do rong fat sama be jana nga bulata fo le diamo mbadi surwa kam welale ani yediam waaw Mariama nuyuwaat gaay rek comme ni ma leen ko doon waxee last week dafa xaw a dafa xaw a wéet ah, tey nag ni wax naa leen ko télé yi bëri nañ si biir bi waaye di ñu ndiroo affaire bi Gambian Talents la fii la moo xoyam xoyame waaye tamit fii la moo boyee ah, fii la mututu bi bi xeeñee fii la ah, kamo fii la moo tojee nen ni fii la moo tojee fii la moo tojee ene ni du seen Gambian Talents TV fii la moo ay nattu la ma boole nattu la ma àndal ah ñu may rey ak wax ma xam ne nag nama ngeen Seven Star Avenue gis ngeen airport baa ñu nii ah, fu mu nekk nii gan seen ay mbokk ñëw neen ah, ku nekk nga ñëw jël si ah, mbokk ñii di jël si seen jikar ñii di jël si seen far ñii di jël si seen alaaji aas ñii di nag si ne mooy naxar ñeneen dañu ne nag moo nekk mama seen yaay ñeneen seen pire feebar so airport bi sometimes day groove yi daf dee neex léegi loolu ndeysaan man dama bëgg a gan man maa mun gan waxal waa semence tey nan la ñëw seet. semence tey kay ko moom tamit na nekk gan waa su nekkee gan ko ñu ngi seet si ko mu ne ma dafa bëgg gan mooy Fatou Samba yow kañ la nekk gan bañ laa ñëw jëlee si airport bi. soo leen ma jël see airport bu boobaa damay def lu nice man ay sabar lay àndal ay bongo ah di ànd ak dungu dungu dungu dungu dungu dungu dungu dungu ah man ñu jëlee ay semestre waaye moom kañ lañ ko ñu jël si airport bi. moom da nga mën a rus la nga mën a wan gars ne amu passeport bi. passeport sax amu ko sax katuma la visa. ñu may gos ah Black Beauty bi service bi waaw mbokk yi comme ñoo ko déggandoo rek ni rek la ko defee saa su ne every Wednesday ñoo fi xam te mooy Banjul International airport ñoo welcome ay semestre leen ne ni ma ni ma leen ko faral di ko waay am semestre nag seen jaloore ñëpp a ko gis ku fi def lu baax waaye suma gars ku fi def ko wax waaye semestre seen mooy Fadou Samba moom Fadou Samba te fu mu fële moo ma ne moo baax yow moom nii rek la foo ko ko foofu jëlee la suma semestre bu mag jël leen bi kii mooy semestre ak. Seynabou loolu si bëgg a wax tey suma sanse bu rafet bii man dama solu sax ba man suma boppam ma xam ne da solu yaa wax dëgg neex yaa la xam nga su amee ñaw kat bi nga xam sa fa mun ñaw. ñawkat bi ñawi mag mu ñaw ko ñawi ñaw ko waaye ñawi ñaw ko te man bébé laa ah pas <laughs> waaw moom baa nga fi jaar yéen ñi nga xam ne a may xool foog na lii ready made la di ready made lii ñaw la ñaw la moo paa nga koy ñaw si lu yomb nag ñu ñawal la ba mu baax 214 6868 214 6868 moo paa nekk foofu ca Serekunda soo leen demee rek si gannaaw paak bi foofu la nekk am na soo leen demee fi nga xam ne mooy forma suñu kër foofu fu la nekk dem leen rek mu dagal leen ko let's cut it let's cut it let's cut it cut it cut it who cut it more back who cut it more back na cut na cut na cut na cut leen dem ñu ne ñu daa wax bi ñu ne ñu ne mu tollu leen gani a ah, wax naa ne ko gani ñoo seen ñu dem man nopp ko ma loof ko mhm. man tam ma loof la ma bëggoon laa wax dama la nopp man tam dama la nopp I love you and me too laa xiyaluma <laughs> jaaxal ah. xaaral ma sol njëkk a yow lu tax soluloo lu tax soluloo mas. waaye yow da nga wàcce woon sa mas léegi nga mënoo maa jaxase gaay. ma ah, a nekk si bunta bi ku dugg si si dëkk bi yéen laa njëkk a nit. so lu la soluloo masque moo ma jaaxal bi ko su gaa yi ñëwee ñoom tam ñu gis ñun ñëpp soluñ mun nañoo ne waaw fii moom dara nekkul. 100 points for him clap for him he is right. maa jox crédit for it. Ah, ñu jox la crédit ba mu doon crédit. waaye ma dem nii rek crédit la di man wax naa la ne clap for him already accept naa accept naa yow yaa tudd naka may Fatou yow noo sant Fatou Sow man Camara Camara waaw waaw man may Fatou Camara mu yow waaye man may Fatou Samba bu Gambian Talents TV oh yeah okay nice to I like that name waaw xoolal caméra Fatou Samba waaye bu ma gaay xamee de ah. okay bu ma xamee sax man maa ngi cool ara ah, sa tur bi yow Fatou Samba la tudd waaw bu fan waaw boobu dañ koo bàyyi askan ñu waxtaanee ko onda. waaw no problème waaw. voilà noo ci da. Muxtaar Kamara waaw sax. Muxtaar Kamara Muxtaar yow soo jugee xanaa yow semestre nga ndax lan. waaw dama jël si semestre yi nii waaw. waaw waaye ma jaaxal mooy yéen solu leen masque loolu rek moo ma jaaxal. Hmm. ci wax loo leen am pour wax. su ma jógee fii léegi maa ngi daw jëli gis sama mag sol ko du du yaaxa dara ah kii semestre la ku ko gis sax xool leen kii kii semestre la ah léegi dañoo def nii rek branch. that's all na nga def maa ngi fi maa tur bi man Khady Ndiaye Kébé. Khady Ndiaye Kébé sa san daa neex ah Khady Ndiaye Kébé xanaa ko bëgg a Aida Kébé si office xoolal ma semestre bi ni mu sant sama naa soo gisee semestre koo xam xool ah, nekk nii sa ay nit yi ma ma ne daanu ne. <laughs> jërëjëf jërëjëf li ka nga jógee. man maa ngi jógee ah, Atlanta. waa a a <laughs> a maanaam waa jóge waaw. nga géej Gambia. non waaye maa fi um, like two weeks ago. Mm-hmm. yes suma jëkkër laa ñëwoon gunge si rek. so man in the next couple of weeks dinaa dellu. so yéen a àndoon. waaw ñoo àndoon fi nekk Atlanta ne ngeen mën a ñëw fii holiday together. waaw ñoo ànd si woon together. moom Alaaji Kebe. yeah so moom moom la ñu ñëwoon bu ngeen si nii. naka woon seen it was nice nit ñi dañ doon move sax to our new home. so da ngaa gis ne it was hectic. de mm-hmm. easy wood easy wood dara dara dara bëri coono bu bugg a dee mm-hmm. suñ suba moom balaa ñoo dellu si waat moom macha allah guddi xaaju guddi mm-hmm. dañ dee dellu si waat waaye sant yàlla li soo ñëwee gis sa mbokk yi rek loolu alhamdulilah rabbi alamin neex na torop neex na torop macha bi yan ngeen toog ah, ba ngeen fekkee si lu bëree bëree bëri ay sët sëtaat nee leen kër kontaan naa ah, ñu bëggoon a xam rek Semester ànd ak jabaram o ànd ak jëkkëram mu ngi naaw ñu ñu tuuti let's tuuti neex na torop allah love chat ma ne ko chat lii moom du la ñuy mën a wax <laughs> Maodo cuuraay nga ko xam nga cuuraay ah cuuraay Amérique ak cuuraay fii dafa. xaw xaw na uti nag. waaye ah a si wàllum lekk loo leen lekk non as fii rek man loolu laa dee togg Amérique tamit yëpp dañoo togg so su ñëwee fii tamit ñu kiñ dëkkal sa loolu laa ko doon su ma nii ma ne leen fii ñun ñii lañ dee de dañoo togg même ba so it was nice. so si wàllum enjoyment eh, lan nga gën a enjoy biir Gambia. Gambia. mango juur yi juur yi neex ma lool mm. mango juur yi moom kuy ñëw sax dama laa ne la indaale ma mango juur ay <laughs> digga digga digga rafet macha allah mbaa jaay wane na sa thank you thank you thank you. jaaroom cameraman wala leen wax kii semester la this is how semester should look so this is semester da nga war a feel the semester in her you know what I'm saying macha allah kontaan nañ thank you so much. na nga si daan semester avenue. waaw dama ko dee seetaan bu ma leen séenee rek ma ne ah ñu laa dee seetaan de yéen a ngeen def lu baax nag waaw yéen a ngeen def lu baax so maa ngi leen a ñaanal loo leen sumbar jaan na ko yàlla yombal waaw loo leen bëgg yéen a ko xam yéen a leen ko yàlla defaral. incha allah. jërëjëf ma ne ko jërëjëf kii mooy madame Kébé xool leen moo doxee ah jëkkër jaa ngi nii Mr Kébé waaye Mr Kébé li tax nga ñëw wële bii di ànd ak man. lii nii I was not use it, need it when I get there. waaw ciñ ciñ <laughs> demoon naa ba si immigration bi ti passé foofu réalise ne maa ngi amee soog daw si suut nii soo moo tax ma daw jël si waat ma wax ne ko dama réalise loolu danga bëgg a ma ci ah, ngi action ma eh, ne sëy si madame Kébé ñu xamal kii mooy Njaay Kébé li laa wax borom xol bu rafet bi su ko rek ma bàyyi suma naataango bu rafet bi mu waxtaan ak kii naka sama star bi ñu tuddee sama I want to uh, thrill you something. Let's go high five, some knuckles, and some chuckles. Hey yo, high five, some knuckles, uh, some chuckles. Uh, yes, some high five, some knuckles, some chuckles. I like that. Oh, how you doing? How you doing? <laughs> Say no, I don't know. Uh, what is your name? Uh, everybody calls me Big Red. Uh, Big Red, what are you doing here? I come to pick up my brother. Which country is he from? He comes from America. And uh, for how long have you been here? I've been here since November, actually. How do you see the Gambia? It's a very nice place, very peaceful. Uh, there are some little things we need to fix, like change some of the stuff, but you know what, man? It's, I believe that it's going to come uh, as the day go by, but it's a very nice place. I like it. Uh, that's why I'm, um, I don't even want to go back to where I came from. So what was the most favorable thing that you like about the Gambia? Everything. I, I, don't. I mean, I love everything. I can't put a finger in because everything is nice. The, the people, they're, they're nice people. They invite you to their house or give you. I've never experienced, you know, everybody sitting in together, but eating the same bowl and all that. Even though they say that stupid coronavirus. Nobody even bothered with that. You're just having a good time. I think it's a very nice place. People should come more to the Gambia. Thank very you. peaceful. And actually, it's very peaceful though. Um, where coming from, coming from the west is it's a little bit challenging. It's, it's kind of crazy out there with lots of uh, different kind of shit going on. But here, you can walk the road anytime. Although you have to be careful in certain areas, but still one of the most peaceful places on earth, I think. thank you very much yes kon soo mbokkee loolu dafa nii gan mu ñëw suñu dëkk mu wax loo xamante ni dafa am solo bu baax kon Gambia we should all try to maintain that title the smiling coast of Africa Gambia suba di pour man kese ma doy suma naan tak kii di ma yaa bi Fatou semester yaa nice bro thank you <laughs> man maa ngi tudd waaw maa ngi sant jàmm yow tey ñu gis la si airport bi da nga looy def si airport bi da jël si gan wala. yeah actually dama jël si gan you know suma brother ba nekk di jóge from Sierra so moom laa picc fii you know. moom since kañ la fa nekk wala foofu la nekk. Um, moom foofu la base in Sierra so yow tey sa brother baa ngi ñëw how do you feel da kontaan wala. Uh, yeah, I'm happy obviously, you know, because it's been a while jisumako, you know, long time, yeah. Bado namanga ko. Bado mo de gini dila dila dila ya hanu vicinity. Yeah, actually sometimes, you know, so you don't muna jena hang out, you know. little time, Yeah, but legi jejna ko, you know. So tesa brother you. te génn na ko xam naa ne dama nga xool yow loo ko loo ko prépare si wàllum lekk. ah right now si kër bi mbaxal laa tooga you know. mbaxal xanaa la wala lan. <laughs> soose you la nama boobu la nama la nama. moom la nama obviously boobu la ko toogal tamit te tooga góor la am you so am sure na ko enjoy tamit. mbaa mun nga tooga. yaa dama de try you know tuuti ko suma jabar moo ma jàngal tooga you obviously so dama de try tuuti tuuti you kon baaxa gën na ne li mu ko wala daf ko lekkee loxo. non loxo la ko lekkee. xaru moo lekkakat la. non du obviously non danka rek uh, na seera rek du bu baax a baax you know but am nga daf ko miss daal anyway mm. so mu bëgg try this time around su you know. so moom su Gambia naka ngeen di holiday bi. Um, so yeah, um little time Jane them visit family, you know, my yobuko for anywhere from Miss Dalsy Dekabi, you know, my yobuko, you know, more than visit. Yeah, and that's it. mu dem visite moom fu mu rek ngeen jéem a. waaw fu ma rek ko ma visite waaw parce que. loolu neex na ma ne ko loolu neex naa dégg yow loolu neex naa dégg trop so yow la nga gisee suñu programme bu ñu defee. Um, actuellement moom tamit dama ko yàgg a gis si um, um, internet bi but yeah it is nice to me yeah nu ma ko gisee it's nice because xam nga. go back on mga nyo just ko you know yung time nga na show how Gambia is you know nitita me just lufine ka you know nyo fine nyo jis. yeah so to me it's nice obviously you know ni na turbo tan bis bin ni jil bis airport bi tan na na ne ga yeah dina ne ka nyama iya lah. mo ha bon no bandi ga bo de ah man angal ter la bu dem you know lu ka na angal be suma jabar angal lah, you know so okay dama am jabar fofu la jabar itu ba Um, yeah, Jaguar Tubab. I'm big Tubab, Tubab, like, yeah, new level, that mid line, you know, so I'm a born for solo, actually. Do you say you were moving with the young for that, and you didn't do it? I am manager, and I'm going to go easy, you know, young Yeah, young book. You're going to go to the young book, you're going to um, but on some I think my the best, you know, to me because I'm um, I'm going to go to the jig end of it, you know. yee te man tam maa ngi bëgg a teral famille bi yow yaa gën a xam teral suma sista yi teral am nga. macha allah teral famille bi waaye incha allah yow ne mu ñu jël la si airport bi ak sa naa ko yàlla you know yàlla moo xapoon you know one day you know yee ñaan naa ko yàlla you know. thank you. seen programme bi yàlla ma kanam you know anyway you know. But I'm also happy to meet you guys today, you know. yàgg naa leen a gis media but mu ne ma. thank you so much yow suñu big fan nga xam naa loolu la ñu leen seetaan always. waaw dama doon seetaan you know bu baax a baax all the time. so finally nga ñëw bi ñu si airport. waaw finally tey tam man tam ñëw naa pour jëli nit ma nit nit tam. yow tam bés nga yow jëli bu ñu ñëw de. amiin yàlla na. you know thank you so much na. thank you thank you so much. jërëjëf Fadima comme naa fàlle ñaamin doon semester avenue la Banjul international airport kana mool welcome jang dul kana jana dul kana ni nuyu yaa kana Gambia dul kana ni nuyu yaa kana Gambia gambia dul kana hewolla dul kana sangollala dul kana ila famille la jiwe mi anla ko e koyta famille kana semestre kumani hani bi albula noma semestre is not here this is what we always do next and wala jigéen dama tànga waaw ah. suma jabar bu ma suma néeg bi yàqu du ma kon bul wax kon nag na seen. jërëjëf waaw jërëjëf. waaw ndeysaan ji daf lay waaye jabar ji xoolal nu ko defee wax naa seen daan Gambian si you have to be nice approche na rafet suñu nu ko tee sax you ñu wax sorry excuse me mu rafet I think it's high time jigéenu Gambia yi you know seen jonge ñu wane ko si yeneen gis nañu jëkkër ak jabar bi ni ko defee woon mu rafet yii ñëw challenge si nga xam ne moom lañ dee fii suñu ñëwee fii si airport bi as you can see ah, jabar bi mu ne déedéet bi ak jëkkëram nga xam ne ñoom ñu ngi doon ñëw ñu ngi waxtaan bu fekk waxtaan ak ñun moo ne que ñun njëkkee am waaye xoolal kii bul wax bul wax góor bi mu ne sa bëgg a néegam neex sa dafa ñaaw te góor yi bare woon na wax waaw moo tax nañ ne suñu mbokk gambien si gis gis nga loolu talent la gambien talent waaye nu ma mën ki ne rek nii lañ ko defee saa suñu di saa di challenges yoo xamante ne saa yu ñëwee airport loolu lañ dee def suñu mbokk gaan xam nga ne ñooñu dañoo ñibbi ñun ñoo fii des dëkk bi su neexee pour ñun la su bonee tam pour ñun la semestre ñooñu pour daal dañuy ñëw pour di leen saluer ñun du ñu xaar ba ñu dee ñu leen di saluer bi déedéet fii lañ leen di sat bi ñu xam ne seen jaloore bi nekku ne mbokkee kese ak seen lovon si ñoo ko yëg waaye dam nañ tam suñu yëg nañ ko waaw mbokkee comme ni ma leen ko waxee Semester nekku ne ñu gëstu laa joxe képp ko xam ne fekk naa dinaa la jël ki mooy Baboucar Baboucar nag borom baax la dinaa leen baara mu yóotu Baboucar moom daal rek yéen daal danga def maa laa nuyu fay naa la soo gënee lan nag wala sa tolaam si yaa fa bi tey ah man suma benn gan laa ici tey she's going back home to England so ma ne ma ici waale ko so that's all moom depuis kañ la ñëw naa leen two days avion def one transit Gambia so <laughs> yeah ah, bi mu ñëwee nga teral waaw teral naa ko bu baax suma suma suma wala lifin la nephew so yeah it was good Gambia Gambia heaven Gambia dafa neex de moo gën a Gambia Gambia mboka nice soo demee kër jàmm mu ngaa lekka ah, ba suur kenn du la di stop dëkk open waaw xam naa dama bëgg a waaw surtout suma caméra bi rek. Oh, dama seet <laughs> laa am ne ne boo fi nekkal tey oh. ah, kon ah, bu dee lan moo fi nekkal loo xamante la mu gën a ci. Um, right now nañ gën a try yokk nit yi seen salary especially policeman yi even civil servant yi ñu dimbale leen things yi gën a easy like for example bus system war nañ ko am si dëkk bi by now am na ñoo xam ne nekkul ñun. mu a ñëw suñu wàccee liggéey pour ñi bi c'est problem c'est big problem trafic bi sax it means dañu war a yokk tali yi and things like that so you know. so yow yaa ngi ñaan nguur gi mbiri mu trafic bi daal. ngeen definitely man bu a ñëw fii took me hour and a half from Fajara bi fii so. it shouldn't take that long loolu yokk a tali ba pare dem a def euh, public transport system boo xam ne it's affordable to every Gambian so loolu la rek. kon ñu si alay li euh, di voters xam maa dem nga di gis. waaw maa ngi war a dem taay. non de dafa am lu ñu rek ci my half ah. pour ma a def oh, soo xaamee rek ñu waaw waaw waaw of course of course. yes. waaw mbokk yi non it's okay thank you very much. waaw comme ñoo ko déggante rek si nga xamante mooy Baboucarr lii ah, lañ ko defee saa su ne Semester Stars bi ñëw rek di célébrer suñu ay Semester Stars yi seen jaloore bi waaye dinaa leen ne si leen ak seen loved ones waaye ñun Gambian Talents TV dañ bay lépp lu ñu def ñoo jël si leen moo tax dinaa bay kenn te mooy suma naataango Mariama bii Fatou mu nuyonte ak suma mbokk yi soosee moom it mu ngi ak grand bi naa Mariama kii moom bu nangu mu daw rek Mariama ba ma daw kii ak ñu rafet nii ak ñu jóguma kii du daw lu soonal toogaay bi métti bi métti bi nga war a ko soonal de tur bi Charlotte laa tudd Charlotte yooyu gis la Gambie te si airport foo jógee nii ak ni nga rafetee rek nga def waaw gis nga Ziguinchor laa jógee Casamance voilà da nga gan wala dama ñu jëli gan Euh, dama amoon gan mu ñibbi ma gunge si ko yow daal dama jógee Ziguinchor ba Gambia uniquement jógee Ziguinchor uniquement indi sama doom moo ñibbi Angleterre nga toog xaar ko gunge ko pare wala sa doom bi waaw kenn amul lu sa njaboot macha allah te fii la sax <laughs> mu ne fii la sax si xol bi mu tudd Abdoul Sow Abdoul Khadir Sow fan la jógee. Euh, England. England mhm. moom ñoo ñëw Gambie ni ñu ko teree because yow ni nga nekk di waxee nii xam naa ne bëgg na sa doom bi te moom bu mu la nga koo toogal yow la mooy wax lu nuy anee lu nuy reeree. teral naa ko gan. moom mu wax daal. kon daal kër gi toj gi moom moom neexoon na wax dëggam yàlla ndax yaayam daf ma bëgg ñu ne sonn si man sama rakk la mais rakk bi nga xamante ne macha allah neex a uuf kon ay doomam bu ñu ñëwee dama war a teral macha allah loolu neex na te xam naa ne tëral na ko ba mu baax soo naka ngeen def naa ko si def nga ko si loolu neex na ma ne ko soo naka ngeen spendé holiday bi da ngeen génn dem am foon ak yooyu enfin waaw guddi gi souvent dañuy génn dem jëli po dem restaurant euh, le soir ma bàyyi koog sama doom mu dem piscine xaw ma luy piscine nager comme yéen terme anglais ngeen am te man française la donc ñu dem ci ndox mi fii voilà noonu la ñuy def. yenn saay bu guddee tam mu ànd ak xaritam yi comme yenn saay mu ànd ak ñun ñu dem reeri voilà noonu la def bu xëyee nelaw bu ko neex bu jógee ko taabalam mu ndekki bi suur loolu neex na mu ne ko loolu moom holiday bi daal indil na ko indil na ko ak na ma bëggul ñibbi lii sant moom ngeen ñibbi yow lan nga fii eh, ma ma dama <laughs> am naa ne jooy ma jooy ma gën a bu baax sax sant bu baax mhm. soo yow lan nga gisee Gambie yaa ma dafa ne Gambie nekk na sama Gambien la sama ñun ñu tudd ka Ziguinchor Sénégal màggee Sénégal man sama yaay waa Banjul la kon ma am naa benn parti Banjul. Sénégambien jeex na. Sénégambien <laughs> ok waaw <laughs> ah, mu ngi ko jërëjëf Mame Fallé Niang Dorang sa masta avis la ñu suñ ah, mbokk moom dafa jógee Ziguinchor ñëw ba Gambie pour ñu jël si te bari daf ko xaar ba mu bi mu ñëw ko kon lii dafa neex moo tax ñun duñ mën a bàyyi semestre famille lañ fi dee nekk ñoo jël seen gan Gambie semestre avenue la ba tey rek toppal ma Mariama bi Fati Gambian Talents TV bi yomba ak yéen avenue rek ah su ko defee nag nu ñu lan ñaati yéen na nga def waaw li ñu rek tur bi rafet bi Bintu Suso anti Bintu Suso tey ñu gis la si airport bi la fay def dama indi woon suma gan buy delluwaat Angleterre waaw moom la indi tey ñu gunge ko gan bi nu mu tudd Abdou Karim euh, Sow ma toppatoo ngeen ko toppatoo nañ ko actually Sikansoor la demoon waaye fii la jaaree woon soo bi moo dem mu ñëwee nii nag mm-hmm. waaw looloo tax ñu ngi fi si wàllum lekk loo ko jox xam nga ko la jox lu bari so may nañ ko kabaa rek ak lifin kasu ak façon yooyu noonu mais joxaale nañ ko yooyu te yooyu pour yaayam rek ak géeja yooyu waaw waaye joxuñ nanguñ ko jox lu bari xaleel la waaw. dama seetaan Semester Avenue. dama ko dee seetaan xaw ma ne semester waaye dama la dee seetaan di last time sam biñ la bëggoon a arrest airport fii gis naa la. bi nga doon toppa first lady bi tamit moo exercise gis naa la léegi-léeg kañ ma gis la lu bari. ah man ma foog ne mère bi ñu seetaan YouTube de. Ah, man dama dee seetaan de dama dee seetaan mais ma ngi def a good job kontaan naa ci seen affaire trop. thank you you're doing a good job and you're doing it in a professional way. you loolu kontaan naa si trop. Mm, you mama kan ak kan ngay ah maa ngi nuyu mboolem ko xam ne xam na ma tam ngeen seetaan maa ngi ko maa ngi nuyu kii itam Pa Ousmane Diouf xamut ma nag waaye man xam naa ko te you know moom tam ngeen def a waa kër ak koo xam ne xam na ma te mu ngi seetaan maa ngi ko nuyu. Mm-hmm. waaw ak yéen ñi sant Suso ñu ngi la naan nuyu dégg nga xam nga leen bonus. ah mu ngi woon ñi Suso leen sant ñu ah, ko nag. waaw man ñi seetaan te sant Suso nga woon ñoom ñëpp nuyu naa leen. Ah, waaw bonus waaw mu ngi woon jërëjëf. waaw yéen waa diaspora yónnee leen meer xaalis gis na mag yi dañ bëgg a xaalis jox leen si xaalis yéen maa ngi leen góore nga ne hello how are you yaa ngi fi dëkk dëkk bi dëkk bi neexut yónnee leen xaalis. waaw boobu de moom baax na si de ah. waaye nag léeg-léeg la ñu yónnee ma dañ dee yónnee nag waaw dañ dee yónnee ñu baax la jërëjëf waaw. na ngay yooga. <laughs> waaw waaw baax na su yokkee itam waaw am nga léegi corona bi. Mm-hmm. ñoom itamit job si stade wuñ léegi nii ta ni ñoo soonee nii suñ la yónnee bu tuut sax. da nga a grateful. because they get it in a very hard way. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf mami ah eh, kon daan nañ si suñu yaay jooju bi nga ngeen ni ko waxee mu ne su la nit yónnee bu rëy waxal jërëjëf parce kooku xëj na mu ngi daw awas yu métti métti bi ndox di struggle just to bring money si suñ biir dëkkare so let's go let me catch you with another summer star one minute waa waaw Andara yaa doo leen nëfatu a ñëw ah yaay ju baax ji ah ñu gis ko mu ñëw ak lu siilise man dama bëgg a jigéen bi solo jigéen dama a mun sa bopp na nga ah taxawal man sa baat bi sax ma ne. demoon meeting. Ah. bilaa dama demoon meeting man du ma sa bés la. voilà mi ne ko demoon meeting waa approche bi nice na di la ñaanal ah, loo bëgg a yaa ko xam yéen a la ko yàlla may this is what we want Gambia ñu ngi leen war a lose dañ war a lim tuuti mu rafet ba bëgg a dee let's go for another one bye bye. this current minute airport bi mu ngi ah, on renovation right now comme noonu lañ ko gisee airport baa ngi nii ñu ngi def renovation xam naa lu mu war a ñëw si wàllum taw bi. moo tax nga gis gaay di defaraat gaay ngi tent euh, su ko defee nga gis ni semestre yi su gaay ñëwee seen mbokk yi buñ taw te buñ tooy euh, si biir moom pare bu ba léegi des minutes so moo tax gaay xam naa ñu bàyyi ñu si biti rawatina nag ñun ñu de jël si semestre yi ak maa bëgg semestre ak maa loof semestre jàmbaar ngeen na wax da ngeen di ñëw si suñu dëkk bi ak ñun euh, di ñu teraangal di ñu wax wax ñu neex yéen a baax ah ñi si amul kayit maa leen a ñaan yéen a leen yàlla may kayit ñi si am kayit yéen a stress free nobody stress me let's go. Kunga Fale Nyame Ndola semester avenue leen xale bi mu leen may brother ya Solomon. So where are you come coming from? Um, Since when have you been in um, for two years. Two years. Yeah, I'm coming back now. So you miss the Gambia? Well, I miss the Gambia. What do you miss most? Um, the beach. The beach? Yeah, I miss the beach. Can you look at a camera, please? Yeah. Only the beach? Uh, mostly the beach. What is your favorite food in the Gambia? Um, Benachin. Benachin, so you miss Benachin? <laughs> <laughs> you yeah. <laughs> You miss Benachin? Yeah. So who cook, can you cook Benachin? No. No. Do you have wife? No. Uh, so you have a girlfriend that cook Benachin for you? Uh, maybe, yeah. we know. Say yes or no, not maybe. Maybe, maybe. So I know you have a girlfriend, It not combination. Audience coming. You can try talking to eh? them. you know, I'm, but I want to talk with you. I'm tired, I'm tired. So how do you see the Gambia right now? It's nice, I just got here. It's, I just got here. Nice. It's nice, yeah. Okay, but tee are ñu def nii jokkoo keneen sax waaw semestre baa ngee ñëw ah xooleen ko gis nga jigéen da nga war a am classe da nga war a am passionality just look at my semester right here looking so beautiful and I'm just here to welcome you like I said, we have to welcome the people that are coming from abroad how are you? Oh, I'm not from abroad. Where are you from? Africa. Hmm. But still your semester fly to fly. I wanna fly, fly me. Your name? Yeah. Nothing happened. We are here just doing our show. It's the TV. We're always at the airport just to show people, the people that are coming and how Gambia should welcome them. Oh, okay, okay. Thank you. What's your name? Yeah. Yeah, what's your surname? I'm tired. <laughs> I'm also tired, but Ghana is not far. Are you blessing? No, I'm not saying Ghana is far. I'm saying before I came, I was doing a lot. Mm. So I'm tired. Actually, I want to Are go. Are you here for holidays, or you're here for studies, or you're here for school? Yes. Which school? Um, Gambia Law School. Gambia Law School. Yes. So you're studying now. Yes. You want to be a lawyer. Yeah, maybe. Maybe. Ah, maybe then. Can you speak Wolof? No, it's my first time in Gambia. Oh. That's nice and I am calling on all the law students and also the lecturers. Let them support her. So she's looking beautiful, my, my lawyer. Bye. Bye. Mimi ni mwezi tano mama mimi ni wana mimi ogame wale ngo mimi no mimi ko yobo nafanya kujanga ni kama mna mwelo maana mfanya uso ni kama mna mwe gown ah nyamsi na bomba ya mahamu ni gown just eh I said I like you I didn't have you. Yeah, I like you. One minute, you can stand. I want to see. That. You like me, and I also like. What's your name? Hmm. My name is Amadou Drame. Amadou Drame. Yeah. Why do you like me? <laughs> I smell so. <laughs> it's okay. I just saw you long time, you know. Ah. <laughs> So you are here to do what? I just come to pick my boss. And your boss? Yes, yeah. yeah I hey, boss. Pick my boss. Boss. you don't want to talk to me? next time that's good xoolal tubaab bi ni ko defee na next time naa ngi bëgg a na nga def ana sa fulaay dañ ko mën. comprendre lu mu ñu ngi wax de. na nga def waaw waaw dama waxtaan ak xaw a jàpp tuuti quoi dama dama xaw a jàpp tuuti. noo tudd ah? man que dama tuuti ma tax. waaw oh. Massa waaw Massa ba beneen Right, hold on, Senegala, you know, you know, head man, that's nice. And I just want to talk to you on the car. Hello, yo. You know, like, you know, now, Hajan, Nagadev. Yeah, Kirvai, madam. But I can stop music, but I'm not there, or radio. Ah, ah, no, Zina. Lamin Kamara. Lamin Kamara. Yeah. Lamin, I'm a taxi nice way. Wow, wow. So, I'm going to go to Manatala. ah bii kay moom soo ñëwee rek dinañ waxtaan ah. incha allah waaw amul ah, benn problème. waaw yow sa mama ma jox la free service léegi nii ku ñuy ñëw. Wow, okay. Um, my number is um, 729-5543. <laughs> Yeah, that's my number. Support Lincoln Lamin. We're so proud of you. Keep it up and go. Wanila, wanala ka bro. Tahawar nii rek. Kes lan xoolal caméra ba. Xam nga ñaari ah. la benn ñaari jigéen benn góor. Loolu du sooti. Ñaari? Benn ah, bi. Waaw. Waaw loolu moom la ah tubaab bu jigéen bu am ñaari far. waaw. <laughs> gars yi yaakaar nga da nga ko jeexale. gars yi léegi yow loo doon dem demee foofu. <laughs> non dama waroon seetlu rek affaire dafa dafa yiwaat man. léegi tubaab bi nag wax kan la nag. waaw mu ngi mandi mënut a wax statement mu ngi mandi si yoosu wala si yoos na. tubaab dafa war a ñibbi ne dafa war a dem. dafa war a ñibbi mis na flight am bi. oh oh. soo pion bi dafa yaaxu si loxoom. Mm-hmm. si yoos na wala si yoosut ma laaj la. ah laajte naa la ko yow. si yoosut. <laughs> Morning, Gambian Lives! You want to know how gamblers follow me? What is your name? I'm Moses Wole from oh, Liberia. All right. Um, is this the first time you have visiting the Gambia? Yes, yes, yes, yes. And how do you feel coming in? Oh, I feel very fine. How is it, Jenny? I'm Moses Wole, my name. Are you here for holiday? No, I'm here for a UN program. Thank you. All the best of luck. मेरे अगले में कॉलेज वेस्ट हाउस में सुन International. बांडल इंटरनेशनल ए आप उन जो What is your name? My name is Mani. Uh, which country are you from? i from, from Nigeria, but I'm a Gambian. All right. Yeah. For how long have you been there? I've been there for, for almost four five years. And how is Nigeria compared? It's fine, it's fine, it's fine. Thank you very much and welcome. What is your name? My name is uh, Alpha, Jali Alpha. Alpha, which country are you from? Guinea Conakry. Is this the first time you have visited the Gambia? Yes. No, it's not the first time, but it's, a, it's the first time I'm, I'm coming there to, to do a show. To, to do a show. Which kind of show are you going to do? Uh, hip hop show. Hip hop. Ah, kon Gambia li neex na mu ne moom dina ko laaj ma déglu fa ñëw Gambia for the first time pour am lu moom te mooy kii ko ah, hip hop hip hop show. So how do you expect our ah, Gambians to come out and share on that day? waxam mu ngeen làkk wolof ah. waaw ñu doon ah <laughs> ñu doon ma làkk wolof ah comme ni nga wooyee balaa maa dégg ñu ngi si Gambie ñu xam ne leen. am na ci ah. faaw bu leen a ah, bla ah, white and red man ma def red and white gis na ko ñu xamoon duro kola wëyal sa fan si Gambie dem bu ko dégg lii non tey moom baat bi daa dee. waaw waaye laa la tuuti du ñu wax dara. salaamaaleykum Gambie euh, concert bi logiquement samedi ak dimanche la au fil. ñi ngeen ñu ngi def promotion ci sama plateforme. daa suuf saab donc xaaral. Euh, Faye. yow kii du ma ko noq. non du du def bul def loolu bul def loolu. <laughs> waaw welcome ok. waaw ma ne ko welcome that's that's really nice ah su ko defee rek man damaa bàyyi ak dem si jigéen ñi naa def. Uh, uh, it's nice to see you. Oh, hello. How are you? <laughs> I'm good. And you? Hey, why, why, why? Gambia is nice. I'm going to have the men over moon. Ha? John. Man kami makadaan, man kami makadaan, maging laki alola. Dala na bis, pass, uh, push, push, push. Gambia right now, we are one of the best schools. parce que am na ñu bari ñuy génn ak Ghana time waaye you remember ñu bari ñu ngi dem di Ghana but instead léegi Ghanaian si ñoo ñëw di jàng si Gambia advancement daan kaam advancement daan kaam thank you uh, what is your name <laughs> My just a minute, just a minute. We're only here to celebrate you. Where are you from? It's Jagaman Talents TV. Oh, okay. Uh, my name is Suleiman Jab. Uh, ah, which country are you from? I'm, I'm a Gambian. I know you're Gambian, but you travel. So which country are you from? <laughs> I'm coming from UK. Okay. And how was your journey? Great. good thank you ko gisee kii mooy Mr Nyang ku ko xamul rek dégg na ko su ne bi rawatina nag li nga xam ne mooy wàllum tourisme ak ñi ñoo fi liggéey interview naa ki nga xam ne mooy Oumi Samba tey mu génn àddina ngeen dégg mu wax Gambia du ñuy célébrer ak ñun interview nañ ko where fu mu nga xam ne war na ah, li nga xam ne moo ko métti si Gambia so let's start celebrating these are our heroes let us them let us them and salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka nga def tur bi. Cheikh Tidiane Niang. Euh, moo def tey si airport. waaw dama amoon euh, some special guest ñu jóge nakaar Ndakaaru ñu nekk euh, members of the tourism federation of Sénégal seen président nekk Amadou Racine si ñoo ñëwoon with a special flight ñoom laa ñëwoon jël si ñoom laa ñëwoon gunge si ñu delluwaat after bu ñu amee meeting. meeting. waaw suñ meeting bi moo am na solo trop parce que diggante ñaari réew yi euh, su fekkee ne flight bi mooy nekk di dem noonu jokkoo wuñ liggéey together dara du dox parce que suñ tourisme bi ñu ngi ko based on European charters te loolu fi mu nekk nii war nañoo euh, suuratu loolu ñu ngi seet yeneen bunta yoo xam ne. dina gën a yomba ñun du am temps boo xam ne da ne eh, fi nekk tourist season la ñàkk a tourist so ci tànka yooyu lañ nekk di dox pour liggéey ak suñ waa Sénégal yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci di yëngu ci tourisme bi su ko defee ñu seet naka la ñoo eh, yóbbu affaire bi kanam. Mm-hmm. Eh, xam naa ne Covid bi affecté na tourism secteur bi ma bëgg laajte rek. naka la affecté tourism secteur. loolu nag moom jarut a laajte parce que moom ñi nga xam ne ñoo cee dundee. Eh, ñi ci ëpp ñëpp ñak nañ seen liggey te lolu musiba la ñuy ñaan yalla safaral ko jikko fere ñu sét ay jégo yo xamné mom mën nañ ko def ba nga xamné mom dina mëna ici isi njëriñ ci ñi nga xam ne ñoo toog seen liggey ñu mëna am yeneen liggey loolu nak lu jafe la amna na lu bari lo xamné lu bari ño xamné lu bari lo xamné mom lañ mëna def pour safaral lolu te ñu ngi nekk di ci dox waaw loolu nag moom loo xam ne lu lu jàmp la waaye loo xam ne daal war nañ ci liggéey bu baax a baax parce que ñi toog te defuñ dara ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen liggéey bari nañ trop te mu ngi affect économie réew mi li nga xam ne koom-koom bi nga xam ne moom lañ ci waroon a am ñu ngi koo ñàkka te loolu musiba la war nañoo toog ñun stakeholders yi ak nguur gi ñu seet naka lañ ko euh, move forward Euh, definitely loolu rafet na suñu Cheikh Tidiane Niang tey ñu nar laa célébrer euh, loolu la nga amee ni kan mooy Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane dundee na ci tourisme ba toll ni mu toll lu ma am ci tourisme ci ci ci ci euh, àdduna yàlla tourisme so moo tax nag lu nga xam ne moo ci baax ma wax ko lu nga xam ne moo ci naqari ma wax ko parce que lu yaaxu ban la yàqul ñeneen la yàqul so loolu nak mom lañu ñoo ba tay motax tax ben tey mënuñoo ritaaya loo lo xamné rek lu baax la foog ñu wax ko te motax ñu cee dund ba dee waaw tourisme démb ak tourism tay naka la waaw wute na nak dafa melni yow mu tok né demba ak tay ak guddii ak euh affaire yi yomon na waaye fi nekk ni lu bari mu ngi xew parce que covid bi for example, ken expect to corona, ñëw na aduna si yépp la affect nekkut Gambia rek so lii rek moom firnde la ne tourism li ñoo wax ne it can cook your food it can also burn your house yii yëpp eh, loo xam ne moom dañ ci war a jàngat su ko defee ñu seet li nga xam ne moo xew nii su xewatee naka lañ ko defee pour nga xam ne moom du affect nit ñi so tey nga am gan mu jógee muy dellu bi mu ñëwee woon lan ngeen ko teralee xam naa ne sa gan ba Sénégal la jógee ñu ne Semester Avenue yow xam naa ne nag feeñ nga ah, ceebu jëndoo ko. ah eh, ma lan nga miin ci ceebu jëndoo ko de waaye day moom fi mu nekk nii def ni di ñi nga xam ne ñoo ñëwoon waxtaan nañu wax bu daal mu takku parce que ñun ñëpp a toogoon association si nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci di yëngu ci tourisme ñun ñëpp toog ñu waxtaan. set naka lañ ko moobee fawat yaakaar naa lu rek lañ mën a def pour di waxtaan toujours di le xel you know di ñu wax ne mbooloo mooy doole so loolu moom ñun eh, ñëpp ci loolu lañ war a jublu toujours ñuy waxtaan mooy mun a yóbbu eh, affaire yi kanam loolu moom liñ fa togga mooy dinañ bugg di tasee ak yeneen yi nga xam ne moom lañ wax ba nga xam ne nguur yi nañu ñu jàppale ñu itam bokk na ci parce que itam nguur gi am na lu mu joxe woon waaye loolu fi mu nekk nii dugg na ci géej gi te ñu bëree ngi toog amuñ liggéey amuñ dapaas amuñ koppari ndawal soo loolu yëpp tam lu ñu war a suuraale la soo ñu ñaan yàlla nguur gi mu gestuñu seet ñi nga xam ne ñoo nekk ci tourist industry bi te amuñ liggéey seet naka lañ leen a dimbalee pour ñu mun a jóg parce que ni mel nii am na ñu bëri ñoo xam ne su fekkee ne seen business yi dim amuñ dimbal duñ mun a fonctionnati foog ñu am dimbal pour mun a eh, suqale ko

te def ne di ñu bàyyi xel rek nga xam ne moom bu mu si ñiiroo ngaaroo di ñaan yàlla élection bi ñëw nii mu ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim ñu jeex jeexal ko ci alhamdulilah bi alamin loolu rek laa am pour wax. jërëjëf jërëjëf ah, kooku mooy suñu papa jooju ngeen gis ki nga xam ne nag moom National Assembly member la wax naa leen ko fay maa ngi biir daf duñu duñu yu baax yi ah su ko defee rek ñu def nii ah honorable da ngaa jege tuuti rek ñu ngi waxtaan ak yow ah, di di door ndànk-ndànk rek. Ah. waaw comme noonu ko xamee. am na ku ma doon wax mu ne as National Assembly member si bëri bu ñu doon dañ ñaaw waaye léegi doon nice. waaw mais man man fi ma moo di pale man moom lii laa mënoon de man kay su ma solee ba dem naa dina sa soli bu nice na ma demee ne di si soli ba si góor bi la loolu laa doon wax lii laa bëgg a naan si dee leen war a xombul mel ni si secondaire bi ñu bàyyi la da nga wax ñu ban yow yaay naanu fan ak si lan nga nekk ah man maay national assembly member bu Oldendam constituency foog naa ñëpp xamee nañ ma léegi ràññee nañ ma si house bi ni ma nekk di def mooy represent waa Oldendam constituency si néegi député bi peut être di leen représenté defal loolu ak loolu si constituency bi comme ni ko baaxee di def rek. xanaa ñëw ma pegg si leen la rek ma ñëw pegg ko waaw. soo yow soo si baax a baax parce que loolu moom xam nga su dul dara sax. amiin dafa yokk réew mi tey parce que am na ñu bëri nga xam ne dañ day xam nga tamit investi contré bi ak yéneenu ah, développé loo xam ne kon dafa njëriñ doomi mi tamit tamit waaw uh-huh. exactement xoolal leen man naam bi ñu jël ko si kaw si suuf laa mu si sa kii sa mbokk la yow caméraman bi ah si secondaire bi yéen naa leen naam si yoo xam ne rek kenn nanul ma man daal dëggal rek ah, ne si sanse bi koo ko tuddee waaw bii moom moo tuddee naa ko Gambian Talents jën jën kay jël leen ko rek bii moom seen bés la waaw. sëñ bi leen toogal si wàllum lekk. tey moom ah yaakaar xam nga Gambia moom mooy loolu ñun moom fii moom liñ fi am moom xanaa benn ci ak xam nga benn ci bu ànd ak ndawal lépp mu doon boobu ñu si ngoon bi si guddi ñu ñu naan lu oyof daal. Ah, ah, exactement élection baa ngi ñëw ah yoo xam ne ma aaroo borom ay safoon moom dëgg dëgg. yàlla yóbbu si xaas bi. ah waaw dañ ma daax soo ñun ñun dañ fi ne man léegi man lañ support bi daax ma soo nangu daal dañ ma daax yi waaye ma support président bi rek léegi. ah li ñu daax la borom la lay jox xaalis. ah loolu ay wax rek dañoo wax ne le borom daf koy jox xaalis jox na dañ xaalis dañoo wax ne rek mais bii lu ma support borom moo leen neexut rek. Mm-hmm. waaw ñu bari ñu ne ah, li nga xam ne mooy yow sa parti bi di NPP duñ win élection bi loo wax si loolu. yow loolu ku la ko wax di nga ko gëm Gambie bi mu mel nii right now xam nañ ne fii président Barrow mooy delluwaat state house rek NPP mooy win nag ñu continuer waati next five years ah yow li si nit ñi nit ñi nga xam ne ñoo lay génne NPP rek ñooy laa ko wér. Hmm. waaw. loolu nga wax de. ah di di naa loolu moom foog mu am rek yow ni nga ko fi gis de. suñu winee NPP looy looy def. <laughs> non yow moom daanaka tamit waat UDP. déedéet ah déet bu dee UDP kay déedéet loolu moom foog naa weesu la léegi moom daal bàyyi ma nekk NPP rek ma représenté NPP. waaw eh, waaw waaw sa kon si kon si ba léegi gars dinañ la dinañ la nangoo votal ñu ngi maa déglu xam nañ ne kay foofu noonu rek laa nekk rek ñoom dañ ma sànni la ah, suñu parti sax dañ ma sànni asuna mi nekk si parti boo xam ne ñooy la gars de support jërëjëf ñu bàyyi la nga dem ak sa gan yi ah, di yaaxa dara jël ma five a five ah wan naa leen ko national assembly members should humble up hey kaay leen xale yi what do you think they should humble up and ah, ñu ma àndal ne la you can just show us ñoom it ay ñu mu ni maam si su mbalee nit yi nañ dee buri relationship waaw kan Mandi Fall loolu foog def ko dañoo biir relation si di nga gis ne connexion bi dafa gën a strong bu boobaa in terms of decision making ñoom it assist ñu am la ñoo def loolu daf ci am bu baax xam nga connexion bi networking bi am na yenn place man su ma fa nekkoon waa ay. yoo yoo yoo soo ko nuyu <laughs> ma artiste bu boobaa rek ngeen xam ne ne koo la votal du du nitum colam colam dama fa taxaw stro xay no xam na fu ma wooyee kii de mu nga uyu kii mu ne nga uyu gis nga eh, Seynabou mii ku ko dugal ko si wàllum politique bi ah dugal ko si wàllum bi su demee du ñëwaat Gambie bii you know come back I will come back vote la mara artiste bu boobaa every week dinañ dina dina am special flight di ñëw guess what man fan yii dama tasee benn artiste artiste bi mu ñëw di nga ñaan ñaan ma xool kii ma xool kii ma ah. ne waa kii biig bi mu biig ah mënu tey ñu nuyu nit xam nga kii kan la. déedéet xaw ma. xaw ma dama ragal dama dama dama ragal a si di ko dóor. mën naa yëg a far. mën naa yëg ñoo far soo xaw ma. dama ko laajte kooku man ma nangu loolu. xati si bu leen jëlee fu loolu bu leen taw far sama mi am doom suñu kaw soo far sama rek la. dama ma ma ma ma vidéo gars yi yaa nga man ragal ma kenn mun naa gis. moom su ma nee interview bi yaay damaa nekk di la parce que aji ko ne ko hey ma daan fàtte lu xew lu xew rek mu daw. <laughs> la ñoo def ñun ñun ñun nii la dañoo daan fàtte samba ma daan <laughs> si jënd ko ko dafa rap léegi. ba pare léegi baatam bi neexul moom man foo si leen de baatam bi neexul ñu ñaar ba jëm dafa rap te xam nga ñoo ko daaxale wéy sax suñu la wéyalee yow nga bokk artiste ba pare sa baa ngi nii sëy te yàlla bu baax. noonu tudd ah. Ablaye Ndaw. waaw taxawal tuuti rek. waaw ah Ablaye yow foo jógee woon dëkk. Sweden Sweden. Sweden waaw. all right da la ñu holiday. waaw holiday yeah. all right nag nga seetaan Semester Avenue. non really musuma ko seetaan non waaye yow xam naa ba beneen yoon de parce que man dama xalaat taay yi. all right ah waaye jërëjëf si ñu ngi seen liggéey bi parce que am na solo trop. Wow, jàmm ak huh? Why you yow nice Can you nga ko the lii rafet na I just stand and talk to the people ah du yaaxa dara ma ne what's your name. my name is Shadu Moro. from which country. from Nigeria. what are you doing in Gambia. I came for visit. visit how long. Uh, let me just say a year. do you bring money. <laughs> money yeah. money. yeah. Ah. yes. Dalasi uh, Naira. I change it. You change it? Yeah. It's very good. Pam! Your name? Destiny. Destiny. Destiny, look at the camera over there, Destiny. So how is Nigeria? Nigeria is fine. Uh, are you are you in this so long? Yes. Like how long? Like uh, two years. Two years. Yeah. You're here for studies? Yeah, I'm here for studies. What what will you studying? Uh, uh, art. Art. Yes. Oh, that's good. Young people in the world are ruling. the one. Hello. Yeah. Not to Alfred. Alfred Naka. Huh? Can you speak Wolof? No, no, no. no. <laughs> Alfred, what are you doing in Gambia? I, I came to visit. Visit? Yeah. To oh, study? no, visit my senior brother. Oh, okay. For how long will you be around? like eight to nine months, I'll go back to Nigeria. Oh, okay. Yeah. Thank you. Oh, thank you. So anyway stay okay? okay? I have good friends in Nigeria. I have the Patrick, I have the Ogunulu, huh? I have so many friends. Have all of this Madonna. This is just beautiful, huh? Mashallah. mm. mm. mashallah. Yarangu lo sabem. Sima photocopy. Sima photocopy. Wa mona dahana. su ma daaxee baax na jërëjëf baax na bu. noo tudd ah? Ibrahima. Ibrahima naka. Jaase. ban dëkk la jógee. Germany. Germany. Eh, bii mooy sa first time li sa doom bi. oh that's nice. Fatima yow si la toog naa ah, Fati Fati koko. naka. ah soo kontaan nga naka naka la moment bi mel yaayam nga gën a nama na doom bi nga soodoo mbaa gën a nam. ah man baa ji la gën a nam. baa ji la a yaay ma gën a nam yow mii wax leen kii yow puusal yow kii soo ma ko sax. Ah. Ah. si la. Uh, I just want to use you as an example I'm proud of you jigéen bari seen jëkkër suñu dee rusloo te loolu dafa ñaaw yow foo jógee. man fii xala teel ma sa jabar baax la. dégg naa la dégg daal. Ah, ah. waaw waaw ah, man ganaar mu ngi yëndoo xoolal la la jaaga jaaga re jigéen la sol black and mu sol black and white affaire de love. fu mu nekk nii mu ngi nii di daagaru daagaru. xam nga lu ma si moom ndax kuñ naa ñu sañ sel moo def ci loolu la moo dox. loolu loolu koy si moom la nekka daf si dere bi la nekka ma ne ko si dere bi la nekka waaw suñ sa la sama sami loona kii lañ doon óolu kii borom baax ku dégg turam nga xam ne ndaanaan la kii mooy Fatou Sama way loolu la liggéey bi la liggéey boo ko latte dama ñu ñu ñu la ndé waaye loolu taxut man dinaa interview eh, eh. jigéen ju baax su ko gisee da ko interview kii depuis bu ma nekkul suñu kër dama ko daan folo kii yaakaar ko woon Pa Ousmane kii liggéeykat la kii jàmbaar la wa dafa ma mbéj waaye loolu tax ma noppi liggéey maa ko laajte. ah ma ah ma woo <laughs> rusuloon waaye loolu du tax waaye semestre nga fi ma fulee nooy nag. mu kibiis rajo yi lool dëgg ma lool xajaam bi dafa doy dégg la ko muy ma silan sang yow man dëgg ma jóge ah ay fum allah na jaajiya ah. Naka Atlanta. Atlanta, not Atlanta. Naka Atlanta. Atlanta, Georgia. We are all doing good. My people are enjoying and we have been very, very, very good. Can you put me on the Bruce Willis? Oh, I'm not going to have Bruce Willis. <laughs> I'm not going to. No, I'm not going to. No, I'm not going to. No, I'm not going to. It's... It's... You are Elfina. You're under, no, no. ఏంటి అందరూ No, sir, I'm not beg anybody. Someone and you have four nights. Huh? Wow, look at wild one. And one of Georgia, Mr. Uncle Mr. Jeng is there. Coach Pasama Jau. You know, so many Gambians are there. You know, Gambians there. We are all good. We together. We go to Ngentels, we go to Takas, you know, we put on Milan, Marinier, we cover the gates. Mama, you're something silly. Man, kid, my journey. We're going to flower, we're going to, you know, we're going to, you're going to slants. So it's dirty, it's not slangs, it's slang. Okay, slang. Mumu was slang, sama mesti was slang lawa. Slang, bagaimana cara mumu yang kena dia? Okay, so since when have you been in the game? I always come to the Gambia every two months. You know when you have money, you shower, shower it. You shower, shower, shower, shower. <laughs> shower, shower. So you give your money to shower, shower? Yes. So today, how much? I give me one of your mehalis, one of your mehalis. One of your mehalis. Can I, can I, can I, can I look? One dollar. What? One dollar. One dollar. Sey Mansour naa. yaari yaara ki dama niiroo man ku jël wan doola man man te niiroo xel leen ma de adduna fi ñëwee maa ngi tilim jaru ma dara ñu wan doola man dinaa dee wan doola jaru ko ñu suñu wan doola mu ñàkk ñu koo jox sax moo gën. no you know what. Mm. Uh, sometimes this is the problem in Gambia so many people when you tend to give them money they start to say dafa tuuti here and there and that should not be the case you know they should know that people are struggling so hard. Hmm. dama wuti semester boobu nga bàyyi fii semester bi. <laughs> oh waaye semester bi interview naa ko ba pare. hello hello. How you doing? I'm fine. What is your name? Gregory, and what's your name? My name is Mariam. Which country are you from? Uh, I'm uh, from here in the United States. United States. That's right. Okay. I need to come closer. Come closer. You want to get in here with me? <laughs> Come I'm From United States, so uh, today we are in a Gambia. For how long have you been, we live in a Gambia? Um, uh, just three months now. Is this your first time to come to the Gambia? No. I've been here. So you love the Gambia? Ago, I was here three months ago. Wow, just three months and you're back. You love the Gambia? Yes. I'm, what do you love most in the Gambia? I like being around people that look like me. Do you have a Gambian wife? No, no, no. Don't have one else. Not yet. Not yet. So what is your favorite food in Gambia? Uh, my favorite one, uh, uh, they, call, they call it Benachin. Benachin? So can you cook Benachin? No, I cannot. <laughs> I will cook Benachin for you. I will. Okay. So what do you enjoy most in the Gambia? Uh, like I said, I enjoy being around my own people. I'm a, I'm a, pan, yeah, I'm a Pan African. You're a Pan African. Yeah. So you love the Gambia, always in the Gambia. I love the Gambia big time. I, I've been all over. The, I've been all over um, West Africa, and actually I've been in two countries in East Africa as well. So, you know, but I really like it here. I feel comfortable here. Not only that, but I do have uh, genetic uh, ties here. I found out mm-hmm. African ancestry. Okay, one minute Africa, one, regular One more question. One more question. So one more question, then we gonna get out of here. So like right now you are in the Gambia. Like what do you love most in the Gambia? Like the environment. Uh, the environment. Like I said, I like being around my own people, uh, people that look like me. So will you come back? Uh, I ain't leaving. You live here? I, am not leaving. I, I, got, I got my cards, my citizenship. Uh, not citizenship, but my, uh, what you call So the election is coming within the Ghana? Uh, I don't uh, uh, involve myself in other people's politics. Okay, you don't involve yourself? Uh, no, I don't even vote in the United States. Why? Why? The choices, what are they? That is your choice. You just feel like not to vote. Yeah. Okay, thank you. You're the nicest little uh, TV girl. and Talents TV. So do you watch some Mr. I don't even watch television. Right. But start watching Gambian talent TV, YouTube and Facebook. I'm going to watch it. This, this is going to be on tonight, right? Yes, watch it. Gambian talent, Just type Gambian talent TV. Uh, Gambian Talents TV. Oh, Gambian Talents TV. Yeah, talents TV. Talents. We promote talents. Oh, okay. So this is all the, uh, the good young folks. Cool. on. Yeah. Cool. Like Get me out of here. huh? Thank you. ñu rek lañ ko defee waxtaan ak suñ beneen semestre yow sa kanam bi xamaloo lu lan <laughs> ah mu ngi mel ni li nga gis tamaate waaye dama mën a wax li nga soose waaye ma xam ne ah bu ma bu ma problème ah man nañ ko woo English loolu du yaaxa dara Seynabou su ko defee ma baal la rek kii suma mbokki man nañ ko la ah su ma lay kontarante konante ah kamaa de kontaan su ma gisee suma mbokki ndeysaan ah ay tudd man de wiyeɗen so neje yaɓe min dalila sabu mi kam mi kam miɗon baka mi komin baka ndeysan kaɓeɗum ta ɓe keɓa f banque ɗum ala en from paris oh, ok kaɓen min toninani gambe mbiyan kaɓen onde kaɓen décembre 27 hey wiye batiri e banne kaɓen décembre 7 wiye nade wiye sel a 27 wiye gane sel a wiye so e gambe jeno ñanaka ah Gam gambia is, yeah, it's a smiling coast it's a very nice country mm. i like the i like gambia yes, yes it's my mina fambi jamia anko ite gena lefta gambia Gambia because here is my motherland. You know, I'm going to go cooking and ah, from Kiwana into Bankotin, so be that Koliari. Me and me present with Marco, I forgot that a lot. Yes, so be that back, you know. Don't want to my dear day back. Ah, kunkelawa <laughs> so kuna nkola nyindomoro so bina akoliya kunkela mata eh, ni every day and before to be you know yes ni kontenta fo kono fara wan yes um, ko abalu bunna ni man sasa mako ro kin uji um ite sab ye kudo dumaji ni anko ite sa mako ro kin bola ni la lafta jandi kana mun gambia ya da changes kana ya ndaka mako ro kin mostly akata ah, jar ken ya funko la yes mostly because nga ma association so jene mbe contribute ah, to you know yeah wala wala ni ta pare ite kam mi fa mi la fa gambia nka nka fama mune jang um, uh, for now how to say uh, not friends all with my family too yes so me wakil yo kuma kan labon na kuma kan labon wala min diko lafta gambe am be nyomu taw no gambe no nyaayele man so man sanata je akada gambe do kula ya purna bondi je yes go man say this what i want wala wala nam sire jang fo am um, uh, a bi le kabinga se sota na voras ka Yes. Thank you very much. Ah, Kono umu odi atale, a proud, ah, gana gana naba dawa dawa ato wa nkona afale, we proud tali. We proud to have uh, somebody like uh, Mr. Danso Kaya, for my amna kufi manke. Falsamba, Agmaria, amna kufi manke tayi. Baye rek moo ut Baye Fall sama rek mooy ba mag suñu oncle bi ndeysaan pour welcome ko rek please na nga def malaka alhamdulillah na ci dama la caméra waaw ana Ibrahima Ibrahima nak ko oh, Kourbali Kourbali waaw ah Ibrahima euh, xamee naa la bu baax a baax a baax a baax ok thank you very much uh US US looy dem suñu dëkk bi ah alhamdulillah sant Allah rek mm-hmm. waaw loolu na ma si wàllum leer waaw ok <laughs> waaw waaw dugal si dëgg la Ah, okay. Thank you. Welcome to Gambia. Ah, yeah, could you let me put the interview here and there. Some people say yes, and others say no. None of alhamdulilah. loolu taxaw dama waxtaan ak yow. non ba si kanam rek si kanam. si kanam si ah, kanam man nag jigéen dañ ma de dooleel man si ma gisee jigéen na dee kontaan whenever ma gis jigéen dama dee kontaan ah oui jigéen bu ñuul. Hmm? man de saka jigéen bu ñuul. bu ñuul macha allah taxawal tuuti waa ñu waxtaan please bul dem waay ah man kay la mbaama ne yow doo ñëw ñu na ndeysaan mu ne su ji su gis jigéen bu ñuul dama war a kontaan ah ñoom seen sey na ñu ngi yaakaar te xam naa <laughs> man xama kan yi maa ngi. yaa ngi tooñ semestre yi. yaa ngi xiif semestre dañ xiif. ñàkk dañ leen soona ñeneen ñi dañ soona. soona a soona. donc gars yi miin soona waaye miinuñ xiif waaye xiif moom miinuñ ko. ko. yow de miin na Hong Kong la dëkk non Hong <laughs> Kong. <laughs> ma switch les daf ko wax rek. Hong Kong yow. police officer na nga def jaama rek kon nag yéen a ko gis ah, Gambian Nice kii dafa ñu ñiif ah, dama nga oo tubaab bala ñu ñëw ñu waxtaan ak moom Seyna bu mu ne tey dafa am ku manqué ci semestre ci semestre avenue bi te am na ku fa manqué de kan la Seyna mu ngi wax ne dafa am ku manqué yow laa la ci mu ne la tam fa manqué man ne fii ma ko manqué <laughs> you know why dafa am ko absent déedéet ñu ngi saawa dafa gën a ñëwoon ñun ñëpp so saa moom fi nekkee daf ma ne abdou yow da nga jaata son su ma la ko yow da nga jaata so man kay namuma namuma namuma namuma Sisa non Sisa Sisa xaw ma la nama naa la namuma la. naa fexe la moom amul choix dama choix artiste foog mu def nii nama naa la namuma la muy loolu si. est-ce que yow ko jaar <laughs> waaye léegi dama bëgg ñu waxtaan si artiste si hmm. describe lan. and I want genuine description. loolu maa moom. alright <laughs> waaw parce que am naa jëli wuñu <laughs> dafa ragal alright léegi nañ describe ST naka la naaw ST dina ma ja ndaanaan la ndeysaan parce que ST saa yu soo melawee sax wala soo gëmantoo di nga dugg du maa la ST di man sax waaye sometimes su naree ñëw style daf dee léegi xam nga loolu lu ko waral nag estime eh, o oh, wóodu la nafsa la vie senior wala faa nafsa la senior waaye nii ka la boppam stage doomu jeeka léegi ici il est temps foofu nga am bàyyi la moom estime man kii borom ñaar bu nice bi moo tax ma ñëw how are you fine and you your name Oli wuli maa ñu dem closer to sama caméra ba ñu jël la we just want to welcome seet nag si si ulfin bi nekk ci la YouTube bi I used to watch you guys I like your program mm-hmm. waaw dama yàkkam ci ban dëkk nga jógee. Sweden. Sweden waaw naka waa Sweden. ñoom sax. waaw ah, wane na ne sa kolo bi dafa naaj. jërëjëf waaye noonu dama doon laal dara. macha allah mm, Jos na lu yaa rek loolu rek laa doon laal. Mm-hmm. waaw loo a nama si Gambie si wàllum lekk. oh my god. gis tali léegi supa. supa yeah. am lan. bu am yëpp. yow sa famille yéen a ñëw. waaw déedéet suma jëkkër ak suma doom yu góor yi ñu fi woon. Mm-hmm. su tey la suma doom bu jigéen baa ñëw. Oh, so gaa ngi Indian Gambia. ñu ngi ko enjoy. waaye on doom bi dafa rafet. waaw man suma taaw bi. macha allah. Kerry looks so kii jërëjëf. Hmm. yeah. macha allah we proud of you. waaw jërëjëf kii. Speak English. Yeah. Oh yes, very much. She's your wife. Yeah, yeah, yeah. Love her. Oh, so much, very much, very much. much. We have uh, the boys has actually been here already two weeks. Oh. Okay. So now we're picking up the ladies. Mm -hmm. So now we're picking up the ladies. That's nice. Yeah. we have been uh, away from each other for ten days, and it was really hard. So Finally, oh, finally, we are together. love <laughs> is back. love is back. So go enjoy your love. Shine, shine, shine. Bye bye. nii la Gambian families are nice. ah wala li li ma ne nga ñëw ak sa family eh, li yàqu dara ah macha allah. <laughs> man Ama Ama Diop. Ama Diop loolu rek ko yàq sant bi neexut. sant bi neexut yow yow yow noo sant. Ndiaye Ndiaye ah li mu da nga war a ceeb sant Diop yow ka yor nga sant Ndiaye Diop nga war a sant. sant. dama laa tooñ man Diop laa sant. Diop la sant <laughs> yaa ngi fa yow rafet nga di macha allah da ngaa taxaw suñu bëre ñu waxtaan yow soo ama yaa ngi ñëw si suñu dëkk bi how long nga fi gëj. Uh, maa fi uh, couple of months ago. Mm-hmm. Uh, waaw so dama ñëw this time around mass my family because of school holiday am. Oh. so man xaaba isi gars yi benn one month at least. Mm-hmm. waaw. so naka nga namee Gambia lan nga gën a lekkay. man man lu ma gën a nama. palasaas laa gën a nama. palasaas palasaas waaw mooy suma favorite. loo koy lekkee gudd na loxo. loxo laa koy lekkee. loxo laa koy lekkee waaw. yow ne la jaay jaay dina la mere ne njaayeen. non non non dara na ma daay mere njaayeen ni moom. dama seetaan sama Star Avenue. dama ko doon seetaan all the time waaw. jërëjëf ah. thank you welcome and enjoy the stay bye bye nice family. macha allah eh, ñu def nii waa kii ñëw na na moom ak semestre bi bu doon Wi-Fi. You xanaa ñoo jël si semestre moo tax nga ballu comme semestre. non man man du semestre. du semestre non what's your name. Ibrahim, Ibrahima from which dëkk. Gambia. Gambia. how are you. good. your name. Mohammed. Mohammed which country are you from. New York. New York. how is New York. good. what's your name. Ali. Ali. which country. New York. New York. How is mom? You came with your mommy? Yeah. What's her name? Fatmata Kebe. Fatmata Kebe. Say hello to her, okay? Hi. Bye bye. jërëjëf macha allah Fatmata Kebe sooy seetaan ñu ngi laa nuyu foofu sa New York ah, another family right here. Mother's Day, like because you guys send me. No, I just want to welcome you, please. please. Hey, I'm so happy to be in Gambia. It's such a beautiful place. I, I come I come here all the time. They don't want to come. Okay. Hey, listen. Shout out to the Gambia. Shout out to Gambia. Follow us on Instagram at Gambia Connect. Yeah. And so you are here to advertise? No, no, we here because we love the place and we come all the time. He lives here. My brother comes here all the time. So you, we come to the United States loves the Gambia. Again, Nana. Go, uh, jump on that. They Allah. Uh, wow. Not to that. Tony. Tony Naka. I don't know. no, did I? I mean, this is when I came to take my sister. Oh, okay, sister. All right, Nanga. Ah. How are you? I'm fine. What's your name? Shema Shekana Mausi. A four Mausi, yeah. Oh, okay, Mausi. Um, is this your first time in Gambia? Yes, please. Oh, um, what do you intend to do? Uh, I'm here to study. To study? Yeah. Where? Uh, Gambia Law School. Gambia Law School? Yeah. Is this your first time studying law or you're going to another high grade? Yeah, I did my earlier in Ghana and I'm here to do the professional law. But a lot of people will always say before Gambians travel to Ghana to study, but now I see Ghanaians coming. What is so surprising about Gambia? What is so unique about Gambia? Oh yeah, the Gambia Law School is a very elite school, a very, very good. We've heard of Gambia Law School, and uh, we have observed, we have observed that when our when our colleagues uh, uh came here to do the professional law, they came in flying colors. You know, they, they had distinctions, and the, they, they they excelled in their performance, and uh, it reflects the quality of teaching here. And uh, why not? Why not? You need to study in Ghana. That's why I'm here. thank you NNSD. thank you thank you bye. ay waay waay maa bëgg Afrique maa bëgg Afrique di def fi africaine léegi su ma ñëw sama saabu ma sol sama wax musoro kaba dagitu ina ma dégg ina waris kaba dagit ina waris kaba dagit ana li kaba dagit yow kaba dëgg ñoo yu meeri de soor rek man na maa sol suma lii kii dafa yabaate maa nga kaba dëgg ñu maa yu meeri de soor hay roma ma nii comme que ñu meer leen ñu ñoo sol kaba dëgg léegi aweel ñu xoolal xoolal romal nga ne direction Dakar direction Dakar man ngaa wax loolu direction Dakar dama loolu diri ak jëfoom Dakar Seynaba yow ah xale bu réew la ah ndigal lu moom ah Biriyanke kon nag nga xam ne yéen a woowee seen na Biriyanke kii Brix la leen tuddee mais ni biri mu si africain daf laa jàpp macha allah nga musuur woon semestre yi ne ne yaa ngi fi. waaw yow semestre kaba dagit ak musuur. moo baat. xam nga da ngaa def yëfu bébé waaye bi yow diri yanke mu sóoru mu sañse ñëw taxaw fi mu nekk direction Dakar diri yanke waaw waaw mu feefelaale def na mu baax. demal sa oncle la ngi ne ne di ñëw woo ala sa oncle. les chance sama oncle ñëw na welcome welcome welcome and what is your name. Iri. Iri, Iri, is this your first time visiting Gambia? Oh, I'm the... I give um, free dental treatment mm -hmm. in Osa Health Center. So that is the reason why I have come here. Yes. Thank you very much. I wish you all. the do Yola doha bura bura dem. Bura yola doha bura buro Nila dem. Ni la ñom suñu ñëw rek dañu xaa jaan. Wax lañ ma next sa suñu fi di next sa mara enna fi ya mani di fi nyo. di hajan nyo fal samba ñom ci sa agno mariyan. mariam dama dama na hajan. Nila ni la liggéey bi loolu la te da nga ñëw ñom na xaa jaan ak kam suma nekkee dara du yomba you know what Seynabou hmm. sometimes uh, ñun suñu booba ñu ne leen Semester Avenue ñun ñoo leen gën a enjoy Semester Avenue ah ban ñi nga xam ne ñoom ñoo leen seetaan di nga ñu suñu woon dañuy ñëwee man su ma ñëwee fii dama ne a waxtaan kenn ak kenn ah. ñu ne di slang ñu ne di xajaan ne ko slang slang slang laa wax <laughs> fatama ko gaal <laughs> falato gaal <laughs> si kanam caméra mbatata mbatata le ah, mbatata le sama saalu mbatata le eh mbatata le sama saalu sama seede mi sola ngir yàlla bu leen fàtte bala ñu so wala ñu sa soblaat di ñu dimbale rek soo leen dimbale sax néew loo leen ko dangeen ko indi pour ñun ndaw yi ñu gën a fas jom. léegi awa ñëw waaw léegi dañoo ñëw close léegi dañoo def play akara. man maa taxaw fii. play akara. akama si loolu taamu school de la nii la naa lay sax niru na kuy nana bile agara du mara wala ma su demee ni daal ba lay teemu dama first round second round maa fi taxaw yeneen play kuru rek ma maa nekk jooj bi another semester right here xool leen sama sa dama abal sa baag ma téye na nga def. maa ngi fi. xoolal sama caméra aywa <laughs> ah? man Ali. Ali naka. Saaj. Saaj. man Finland. Finland. waaw naka waa Finland. Fine. Ah, oh, Fine. ko civilise nga lii laa bëgg si semestre semestre dafa civilise enough mu as yaa ngi yaakamti nga ne hello benn hello yaa xam la dara sa flight bi soo ko naree mis du ñu nuu tax nga mis ko yow toog ba ko mis soo soo ñëwee si airport bi ñu teg na vice président uh, Islamic Council oo oh, ko su ko defee ñu mën a waxtaan ak moom kooku kilifa diine bu mag la waaye unfortunately xale yi xam naa ma dama ko a indoo parce que man Salamat kabadagit. Muna mo ka sa kabadagit. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh Ibrahim Masani Jeju, second vice for Secret Islamic Council. Ah, Sheikh Ibrahim narangi ayo ah, inara bang ya puru de nara mula demi. Ah, ngkata male. Ngkata male. Ngkata mule. Ngkata Dakar le. Insyaallah. Ah, ibe uh, organization wala super san council kan ibe represent kan eh, ibe uh, vice president ni itin uh, organization ni kono ikata wala uh, represent uh, Dakar wala ikata uh, kuntulin na hajola uh, eh, Gambia nkawla se je kato nene nga competition o kajam yalam ko Quran competition yalam ko Afrika tundo bele bentala then aketa let uh, Imam Barham Job Serekunda Imam Ratib min banta adiŋole second position taje den nkata wala pour kala precision ñintala ne ala ala ala fen ko ala no not certificate ala ala ala ala ala price wa kawle kada wala ta ata winta ja nyanta 5000 US dollar nyanta wala ta la nka danda wala pour ko tananje inshallah naɓita kañola toon modou barham diop ah, ay qouran o no baake a kata baake a yaadiŋol be kunu qouran karaŋola i be yanole ni momoya kara isamira ko atele yano modoyto ñiŋ maŋ ka la fosti a tata maritani ay ye second position ta a nene tata dubai duniya bele benta ja a ye position ta woto dinniŋo le miŋ ye ko ala ñatata be je le wo le atinanka pour ka ta ka ala kodo ta inshallah so so nyin kurani competition nyin dimal ka organize uh, through so san council wala nin ka fodo lawden nyin ni organize eh morok la king el eh, ala king wala ya organize pour africa be den wala ya ke sun karo wato kono corona le ya sabu den sayin kabe fen kata ko foya fri africa non fanan commandé ngata nga ben dakar momo minti ya sikaya dila ndol kadini wala danna pour kala sama nyinta na inshallah Um, so itel uh, uh, le uh, uh, moroko la kenya atel fan ka uh, uh, location o selek walla afo ko uh, ñin kar kuwo ñin be kala wolto walla ka jibel doron a ñanta ka kenya me tol le ka jibe sangu sang ye bank kilin cuus mole ta je uh, bot ñinen kabirin corona keta ya ke bay zoom mumoy la banko kono ibe itol be sila damen to ni la time sita dal ye ñinin ka duniya be ke jibele ye yekkarago ke mistake tay afin que ni yatara koye tata fo afin que dal e resol soddi ah, ka beriŋe addi tana ko yaje jeko dal ni wonde second position ta nden e africano fanan commandi saŋ madama corona fanan saŋa talata le ye mbe commandi banko bank mo sabale kata mo fula wolle ke la fen ko ñin dandan mi ya lon ka winta min ma win imbe mole commandi yena yamaɓe min ya lon ke ta dal a ah soñin africa banko belem walla africa uh, fenkole mo findu namanka arab africa arab bankol wallate je bar namankawol tiñin ɗon ɓe ɓeɓe jeele nden ba jara min dunta jeele kabiriŋa ke folo folo ŋa foŋa ke pour sélection o ñiŋ doolu bee boyta sabale fintit wo sabol kono wo le dunta fanaŋ kil ne fintita bari wo doolu miŋ ye a ko ka sekonta wo mu kuuba le Ah, kaatu nun to ni a tara ko moolu ye a je ko gambian banque dinde moolu boka kalamta ban londo le kaatinata al moolu ye banko kalamta wo londo ñiŋ min tariyata ka moolu tanda la walaŋ qur'ano ti kaatiri a diŋol niŋ ka finti saa ye ka taa maka ye ka taa daawo da competitiono la i e siya baata le wo ye tandi la ko moolu ye a suutee ni walla a ye ni walla ye lonni londo la ye lonni qur'ano la wo kumayata baake le so supreme exam a an balla uh, uh, kata kuola pour kañin uh, sifa ka bankudil uh, ah, uh, ah, expose ñin ku sifal kono pour ta bandira bankol ka wo mun tolla target balati ka a ko dindiwol lafta ye, ye, ye, ye londo soto mi yalon ka si banko sambano ñaato wala tna ñi mukkule ti mi yalon ko dal ka traye wate wate nak pour ke soto ndala ka itande ko ñiñanta kake alfal fana sadio ko londi te ker mi yalon ko faare londoti londi te ker mi yalon ko banna lombe lombe leti ndebe je ay karanya dole ke miyan ko digri jamal babulu aman fe nafano ala harjete je ndebe je aman karam fereng ay naful bala soto ndebe je qur'an ay wala karang atata komposa fama ki hijora nin qur'an competition wala ndebe je fama be luwasola competition ay min qur'an la wala na korda sanga fama fama bo luwasola samba korda kono woto yayitan ko qur'an la Eh, karanɗulaaɓe si aɗa ñamima nak moye fene ke ɗigo ɗum ɗije nene ten losla ni master duniya kono lakare kasotola ah, madama sa wato sitale watuga dañangata wolem ñinti ko mole fere ke dale kuran o kumayandi musidmon ɓe gambiya si a ɓatale ni ɓe sontake ɗigol dunde kuran tan kadula a kumayata bake a koola e saje ko dinniŋol siddon english school ola ni ma bay school to ka to ka fa mo fala to wala na ma jono but na dun ta arabic school adun ta quran tan kadla te ka fe ko da siya batale nyindo asisia nyonya dinni ne ma je ni aduni quran tan ko la na e quran o tan ka ay dunya sete la kara soto andun dinni do be je nyano kana la do ya be mol ka te kuma kumande katamba famala muna na ya kuma kumande katamba mala ka to ka min na fa ma ma no wala quran o oti anasi tara tam wala nak isi silama biyala mi alon ka fama nyante sila damen to qur'ano le babulu woto fere ke dinge ka alfati wotuma be do ne min ka alfani wotuma be do ne wala qur'ano to doron be nga fere dal nga o tunku Okay. Uh, ya fili feel nyale nko hakindre ya feel nyale lo pru ye daro EU ya to be part of this this thing melo nko nkana de mo melo nko be fundi bongo bango wala kana nan ka wala interview ne ka chasure yim man ta be mbalati katko nim man benjan tumando bato mol ta kalam tala ko mole qur'ano winja hata pour kañum fen ko ñinta allah hen commandé natanga o kankularo dijan aya gambe a fanan lafa londo la ko yaje ko dar yara fanyun kata ba mutu dar dinne wala be je nyanu ka fen ko ando fanan abe kol ko no yalu ka afama cikandi ko tonke afama bandale bare bidu ne kay ko modu barham job momo ka fe ko barham job imam ratib sere ko melal mam mum banta dum abe walem wo kata tala sadala tumi ala ko wato atnak na tofo na ka to ka cika wo mu ku kande balati ka ko dingo a siso barajo la madama aka alala tole fonkion a siso barajo la madama ni ya tofo e ka tofo nin eh, eh, eh, ku kendo la itele ya kulumin na o kata ko ñimmale te inchallah ala baraka baɗigol mba filale ko babay so mista avenue bantale ɓoddi molɗum ɓe jam miñalno ko seynabou aɓen caméra muta kane bara yala fa <laughs> hakkille mum maygo kanda maygo muta amalef ko maygo bula lamdi sey maygo muta amalef ko maygo bula wa caméra ba hakkille o maygo kan mandimutno ko jus gannen tan sori am videographer ganndeke si vidéo way ndekete ndeysaan si hay yemin si mike haale gannen tan si ɓe allah ma mike ndegem buga mike o ni walamin amuloo morom ndeysaan yow <laughs> si saa te xam mbóote dafa overlaa mbóote laamin laamin ndeysaan kon ak suba bi yëpp si xel bi fii si lii la dee kon bu ñu waree next time dañ ko jël dégg nga dafa jël place si saa rek téye mic bañ ko bàyyi <laughs> you know what uh, that shows uh, nun am mm-hmm. can imagine sun cameraman bi xale yi ñaar yi suñ fi nekkoon ni Maha Jaan xam nga yow mënuloo làkk soose léegi tey ñun ñu def man niñ ko bi suñ caméra la dem seet caméra bi fële ma taxaw si gannaaw caméra bi man ma caméra moom mu ñëw dafa ma interview bi si soose xanaa nii so young people euh, they should emulate euh, people like Lamin Cissé ñu xam ne àdduna amut solo lu du jàng jàng rek a óor xoolal kii nu mu nekkee di ki nga xam ne mooy Supreme Islamic Council seen second vice president very very very very good i'm impressed so lamin kodole lamin keep lamin kudos to you i'm <laughs> proud of you hey hey negi suñu assistant waaw suñu benn assistant caméraman moom moom behind the scene dañ ko génne tey xasaale xasaale dellu laat kan ma la wax ma ñëw <laughs> man ooyu ma la de man mii ah, Fatou ah yéen a yaa ma oo man ooyu ma la de man ooyu ma la léegi te mu jooy léegi te mu jooy <laughs> bu mu jooy bu mu jooy interview ko hard interview hard one waaw moom bi nekk si caméra bi moom moo nekk assistant caméra bi moom moo dee téye ah, light bi daw ak as ha sorry unfortunately assistant camera amut wala mo mo ne assist cameraman bi ah mo ne assist camera waaye tey Fatou Saba <laughs> man Fatou Saba lu ma ne toog ah mo mo ne assist cameraman di ko tiyel lay ak yooyu noonu léegi xasal yéen di fil ak seen daw yi ak yooyu noonu ka boole mo ñu rek a mën a fil ah ndeke ñu fa kontaanoo ya kataran kabuka yi semester avenue te ya anka enjoy la always wana ni afo nyerek mbuga hesitate fan kan ngalaf katara ja always mune mo na be kontan hanna munta mu yakanti mu ñoti mag bi mag la yakanti <laughs> ya bene ada len nak ya eh, eh, okay yo la te una cosa la te una vamos a muñala ma yo la rita na la te ma Why is <laughs> Hassan. Just say hi to Gambia. Say hi. Hi. Where are you going, Hassan? Uh, Lebanon. Lebanon? Oui. Since when are you in the Gambia? Je comprends pas English. Huh? Je comprends pas English. Mm, je comprends pas English. You gonna speak English. Mu ne moom déggul English. Je comprends pas English. Loolu <laughs> mu ne li ma noonu la jógee te moom damaa laaka naar te dama mu ne je comprends English. Amal fii moom a dee neexee si saawa si saawa mu raaka good friend. Mm. Waaye sam naa ma war a laaka friend sax. mu dem North Carolina ba gàtt kaay na zaale kaay bul dem dafa rus xanaa ah, dafa nekk di daw parce que yaa ngi doon interview amul confident yaa ngi doon interview léegi tubaab bi romb rek nga bàyyi ko yow ko bon nga <laughs> azali bàyyi ma ba tey ke kontaan bi ka bata jam bakere ka fa semester ka tali interview semester bu ko som biya jara men ka taja mo la ko mo approach doron ata def ta mo la interview la musu mon son hazari so do ko kontaan wala Iya, ante ka because always n kalafi ka semesel ta na li nanya jibe mini kana dandan so n kalafi jila so, nde so nde asa ma easy nak ikana kalafi ka modu interview akantara korondere wala kan na harno so so ama easy nak yeah Hazal mi def dee kontaan waaw xam naa lu tax Hazal mi def dee kontaan because su taxawee daf dee pétu léegi nii soo xawee daf dee naab su ñu ne si airport bi <laughs> ibu ko naab su ko ibu ko naab ñu ne airport ah na ngeen jël naab la ani ah, sa nga na so nga ya man jël mo bay dafa ite yàlla na ma ñaami rek nga man jël mo di def daga taw est-ce que da contribue ba ndaga anyway rek nga so dem bokk anyway Sénégal no Afrique ma <laughs> Afrique ga ñoo mu ne anyway mu ne ko Sénégal mu ne Afrique hadi Sénégal kay no Africa moofu Europe long America anywhere <laughs> anywhere ba Sénégal fana mi bangontiko fo ɗita wasu Sénégal kay woni lafa kay mbeta barare ngomuroɗa ngata Sénégal tout des ngomuroɗa o ka ɗum pile ɗo kata Sénégal o ka kila bot Sénégal kay no o mangena plan o mangena dream de so miñimaɓa yiɗo ito bune keleji mo jumama yiɗo ɓe complain kan jeeɓe batari ne bune keleji mbiɗa jomama minne ɗo gara hakkuɗo mbirna iniye batake je tan je wona fana aɓoɗe ñama jeeyi batari bi jeere sone yaabi je so mbita rek <laughs> at least mi esi yo mo ke ngara mbo na ya semester le ala zali ma ko azali bada mun ta ban nafsi na kala ta katale anywhere hana bage janni sergal al pasu ke ra ya ma ko ya ta ban nafsi bo na ke wa nafsan dillahi na ya atala nafsan he akola mi se fara nafsa jibere nka nka je na kama nya mi na raja kama nya de ha ita ka pleno video na ko tra ke kan teng ala ba ba ki mere always ma bula fatsa ba ka to mu fura de It's seven. We're going to get my mic. We're going to Hong Kong. Hong Kong. Man, Hong Kong la jóge. suñu mbokk yi ñu leen di bu baax si seen ànd rafet bi comme ni ngeen ko defee saa su ne ñëw rek di welcome suñu ay semestre bi si saa waaye suñu semestre bi man balaa moo tàggatoo dama bëgg mu waxaat si sanse bi jaar ak naka la xam man maa def bu ko sanse moo defar sama fii laa ko def mm, waaye soog daal ko dee drop de nekk na olof fii laa su ma nii laa ko dee def cos moo paak Fatou moo dee sanse ñun moom dee saat <laughs> ñun moom Jamaica lañ jógee waaye. man Amérique laa jógee Jamaica yow yaa jógee Amérique. waaw man Jamaica <laughs> <laughs> contact waaw jërëjëf ma ne ku yàgg teen rek baag fekk fa di leen wax ne nag ah, xale yi ñoom it ah, nen góorgóorlu ah, soo góorgóorloo rek ne sax ñawkat yi dañoo ñëw di la fekk sa place 214 68 68 214 68 68 mooy na ma moo paag bi moo jaar si sanse bu rafet bi macha allah thank you very much I love the outfit it's so nice daga nga ko si sama yaram bi ba ma ko feel look at this xoolal naka la naan gis ko waay <laughs> so guys ñu ta ñu tàggatoo so maa ngi maa ngi jaajëfal ñi seetaan di la wane Semester Avenue is here to stay and you guys will be enjoying it more and more and more akara sama munu ñen mu le façon du man ya ma munu ma le na akara man suma fi taajo rek airport yëpp dégg ma <laughs> kontaan <laughs> gis nga xale bi ah? mu ne sa kii dafa am artiste. du loolu sax de woyaan de woyaan ma ne ma ma ne ma ma ne ma mënu wéy ma ne ko def de woyaan ma tamit mënu wéy ah defu néeg léeg. te every time every Thursday dinañ ñëw. incha allah ñoo welcome ba pare ñu def te di di wax semester nag nañ continuer nekku semester rek Gambia nañ continuer di ñu support ñun ay xale lañ leen di ñëw si airport bi sunu day gis nañ fu mu nekk nii dañoo ñëw dox sax pour ñibbi. passé duñ ko di am ngeen support ñu loolu munti am ngeen support ñu ñun moom wee xiya xebuñ dara ngeen support ñu gis ngeen witti rek fa nekk caméra pass dumbe hasali ak ñun yëpp ay xale lañ continue to support yes thank you te ma leen di wax tamit sama stay soo ñëwee bu leen ñu dee xajaan force gis ngeen fi tey jigéen bi ñu fi def bu leen ñu dee xajaan góor bi ñu ba waaye jigéen bi dafa bañ am na suñu waaw dëgg la góor bi dafa ragal ragal ragal kooku ah, am na sa droit mhm. sa jabar ah, mu soo demee interview néeg bi du neex eh, su doon mën la sa ah, yow tam dama dama doon interview dama doon nag jigéen di jonge du wuloo ak jikaram mhm. jigéen di jonge jëkkëram mu bëgg a interview moom parewut ko euh, bugut mu interview mun na ko waa papa mu ko rek ne ko papa dawal ma caméra yi man ah, ma li ma waxtaan waaye nii ñu ne lu waxaa ñoom hmm. ah, dafa dem ñu ñëw fii dafa nama jëkkëraam xam naa moo tax mu def loolu <laughs> waaye lu mu nama nama jëkkëra waroon na ma civilise gis nañ ñu nekk si biir Gambie ñeneen yu bari seen mbokk yi Europe dañ leen war a di leen jël classe di leen jël lecture loolu ñu xam civilise civilise yooyu ñu naan the wall is moving every day we graduate we so it's good léegi let's kabadagit bye bye li ñuy kabadagit no follow us follow us we kabadagit kabadagit kabadagit kabadagit kabadagit waaw Gambian Talents I don't like you guys bye bye naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu ñun we are happiness ñun we are happy free stress free zero stress dem leen vote nag na gaay vote na gaay dem kaas seen vote ah ngeen votal ma vote is your voice vote leen Gambia na ñëpp génn dem register ngeen vote élection bi dafa over important ku nekk loo munti wax na ndi wax dale ma ku ma votal koy ah. votal suma vote ah I myself koy foofu Samba lay foto ba su ma nekkee président ah, <laughs> nekkee président nga def ma vice président de eh, man ma mën a def vice président yow su ma demee vice président sur affaire fa yaaxu man nga finance dégg ma xaalis mënuma laa ko def ministre comme lu Amad Ba bi tourisme waaw yow su ma demee nga mel ni Amad Ba dina wax ba kabadagitu maa do kabadagitu jëru jële ma xaalis ñoo tuful rek ñoo wala tuful bu ma roos man ma ko interview <laughs> baba we are Money Transfer is back again with a massive offer for its customers this Tobaski. Get it to win one of five rams or one of five bags of 50 kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top up. Yes! From now till the 16th of July 2021, Send money to family and friends in the Gambia from anywhere this Tobaski with Supersonic's money transfer and get the chance to win one of 5 rams or one of 5 bags of 50 kilogram rice or become one of the 10 lucky winners of $1,000 worth of cash power or one of the 100 lucky winners of $100 credit top up. Enjoy our safe and instant money transfer service with the lowest fee, highest rate and largest payout network in the Gambia.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 أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم sambe gambia um, futu muso yala nataluta ayala private part nata walla na eta video call fa moja mako kontale bare aya ke a ke male ma fo ala kambano wala kotem am dino e mune fo nyin kusi fato yalo wote konnalo serewo e kuwalle londi moolu ñin tara sidol men nin musoɓe america iteɓe gambia ko fulale ɓe je kato ɓe musoye ta ko kato beke ke teta musoo niŋ kewoo be kaŋ musoo be a la kewoo naa naa ye niŋ wo ila alayhi salatu wassalam a ko moo moo taata jiibeere laaya mm. a ye kuuloo fayi ye a ye meŋ mm. fo ye surtout meŋ ka fulan ɲaŋo ila muso be kuro kono taate na ye la a kafara bima unzila ala muhammad womari kafiriyata kitaboma le ala ye min ñinni kiila kamen walkuranoti muso ko anin a kema ye problème o because um, a kema lafita le pour private part ka susuwa ye ah, kewo ko ala muso lafita a fana bari cewoñin kaye ko um, ala alato fola damen nan kadduwa damen na ntete o dumila mum sola prave patto bari dino e mune fo ñinto ɗo gunda to a koyenne ko wolumu wulolula daji koleti annin beyawon Oh mm-hmm. أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام